jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo di Fallou Ndiaye njiital ba Ndiaye production moo ñu fi woo waaye tey gis ngeen fa ma dugg supporters noonu di bëgge yaa ma gën lamb lii lamb ñun lii am jël leen champion ma mooy làmb tey ngeen gis làmb ju neex tey ngeen gis làmb ju am ambiance tey ngeen gis làmb joo xamante ni macha allah waaye noonu lay demee déglul gars ni ñuy bégee. Fall siyaar naa la. waaw ah, maa ngi lay déglu siyaar. noo tudd man maa Boy Bambara. waaw. koy indi tay koy indi. waaw mu suñu champion. waaw barki yàlla. nga ñu ngi bëre benn boy bu dëkk Cameroun waaw. di wax ne après arbitre rek fi bay quoi. parce que armée jox ko entraînement am na doole. barki yàlla. bilaay walaay. jàpp daan kis moo fi bay. jaajëf. nga war a mel. dama lay yóbbu ngemb la nga defante gaay waaw as maa lay siyaar waaw jili maa lay dëkk bi wax waaw dëkk baa ngi nii rek waxul dara gaay la indi fii mu ngi fi indi armée 2 waaw ndeysaan moom la ñu sobat yàlla bu jàpp gat bi daan ko daf ko lu rëy incha allah rabi loolu lañu bëgg ko waaw soobee yàlla yal rek loolu lañu bëgg suñu maa ngi ne jëlal ma ko ngi ne Armé daa mel ni champion la. champion la yàgg mooy ñaata combat am xam nga ko. non vraiment nag bi ko quatrième combat am waaw bi mooy quatrième combat am. yow yaa ngi doog a ñëw stade. waaw maa ngi soog a ñëw combat am combat ñor moo tax. incha allah rabi yàlla dinañu may ndam. waaw yàlla baax na. mbër. maa ngi lay ngi siyaar bu baax a baax. sant naka mu yaa ngi ci jàmm. waaw bu baax a baax. waaye eh, bu damay woo buumi de ba ma def sama émission waaw. maa ngi fi de maa ngi waaj rek maa ngi préparé ñu ngi may contacté di ma wax ay combat mais xam naa léegi mu sotti incha allah waaw maa ngi entraîné di xaar rek dimanche bii suñu ma joxoon avance léegi dama koy bëre baag sëñ Fallou. mais dafa mel ni fi ngay làmb dafa nooy de lan moo tax booy di la daw lan moo tax sa combat jafe. bëre bi moo soxor du ma bàyyi man damay bëre jusqu'au bout moo tax booy dañ koy ruux naaj moo ma teree bëre ba léegi aw ma aw ma combat barke Serigne Bamba daa mel ne ndaanaan bu amee defe dañ koy jéem a suul ngir bañ mu jug ci kaw ndax xale yi ci kaw dun moo suul nag ndax sama doomu ndey ku mel ni ñoom moo ñi ngi nii ñoom ceeli ñoom seexu man kenn mënu suul suul sëriñ Serigne Bamba Mbacké booy maa bu doole maa leen dàq bëri li may entraîné xajul sax seen kaw billaahi wallaahi kan ak kan nga bëgg ñi ma bëgg xam na seen bopp man ñi ma mujjee bëri ay ay ñoom pëdi ñaa laa bëri ay ñoom kii man sëriñ ba Bamba nok yaa ñoom ceeli ñoom samay fii seen quoi war ñoo ñu bëre war na Bamba def agogo de la mer. waaw mais xam nga rek agogo sama doomu yàlla tamit xam mooy loolu <laughs> yow woo xam nga ne mooy loolu. <laughs> looy daw noo def. maa ngi fi. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jam ba. noo tudd. Nogoy Diouf. Nogoy Diouf. waaw lu lay indi fii moo ma fi indi. armée. waaw. di ko ñaanal na ko yàlla may nam ci barke Serigne Saliou. muy ko. non non. am na doole de. ah euh, sant yàlla rek. yal na ko yàlla may nam ci barke Serigne. di nga seetaan làmb ji yow. dinaa ko seetaan bu baax te dañ cee gëm suñu da koy daal incha noo tudd soxna si. awa. awa waay lu la fi indi. armée ni mbooloo indi tey ci làmb. macha allah mbooloo la fi indi ñu ngi ñaan yàlla mu may ko ndam ci barke Serigne Saliou. xeex wala mu bëre. na bëre rek waaw. yéen di jigéen ñi bokk nañ ci làmb. <laughs> xoolal jigéen liñ civilisé. maa leen gëm. <laughs> waaw waaw. noo def yow. ça va. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. moo tudd. man Fatou. Fatou waaw. ku la fi indi tey. armée 2. tey armée 2 ñëpp armée 2 boole. waaw gisoo lool. ngeen jugee fan fu ngeen jugee. ñun ñoo ngi jógee ñii Caaroy ñii Parcelles mooy lool waaw. maa ngi ñëpp ñëw ànd ak armée 2 mais da ngaa def ba mu baax doon sa tubay bu rouge doon ci sa armée 2. wàccee ci sa benn casquette. non bëgg a jàppale Armé 2 rek mu bëre yàlla may ko ndam te parce que moom xale bu baax la bu yaru wax dëgg yàlla respecté na ñëpp aussi mooy lool mais nag sama téléphone dañ kaa sàcc nag loolu mooy wax ji fii. laa ilaha illallah. Eh, fii lañ ko sàcc nag génn balaa ñoo ñibbi nag wax dëgg mais supporter Armé nag duñu sàcc nag xaw ma ñan ñoo ko sàcc mais du waa kër daal ah. sa ah, doy na waar de mais Armé jar na ko nag mais. Eh, gars ko téléphone bàyyi leen di dóor jigéen ñi waaye di leen dóor seen téléphone di ñëw ci làmb ji ambiance yaa ma gën a xam sëñ Basiirou ba siyaar naa la mbër waaw waaw dañoo siyaar bu baax a baax sant borom Tuubaa bu kan Armé 2 la man li ma jaaxal mooy Armé dama ñëw fii fekk fi mbooloo mu bari ñëpp ne yow la ñu àndal waaw sant yàlla bu baax a baax ñoo ma seen fay dama ñaan yàlla mi am fay rek yàlla yàlla fayal ma leen di ñaan yàlla suñu borom mi am sutura di may ñaan yàlla suñu borom dafa mën damte yi parce que soxla nañu di sant Parcelles Assainies gi ma dégg di sant waa Bawol rawatina waa Refane maa ngi suma tey armée day aw ma seen fay barki maam Sera Fall fu lii depuis ma batal ma toppee nag ba léegi barki maam Sera Fall depuis waaw bapat naa Bawol Refane Bawol Refane yo dama koo toj ñëw nag Dakar toj ko barki alxuraan maa ngi bëre benn mbër bu naan Blondie quoi Blondie waaw Blondie Blondie dégg nga mu nga fale moom mais moom naa xaaj suur bi ma dimoo ko daan ko non kii day xeex di bëre. ñaar yëpp barki moom Serap yow tool xaaral maa ngi daan yow rek li nga ne daan naa woo. waaw bëgg naa leen amul barki dem supporter yi nga yëngal leen. arbitre Arbala! Hey, armé la jaajëf dégg naa de jaajëf Faye. gaa yaa noonu sëñ Bass ñëwal. cey laam mbër. waaw kay siyaar naa la. delloo Baras. Baras mbooloo mi nga fi indi fu la jëlee. waa ñii sama sama dëkk lañ jóge ak sama waa koñ. man dëkk Bawti fu mu ne. ko département de Foundiougne. waaw. bi mooy sa ñaata combat. am kan. Euh, kii Sathior. waaw. xam euh, non non xaw ma ko. c'est dina neex. neex kay. ah dina neex ndax man mbapatkat laa mbapatkat du dugg fu mu neex fu neexul. waaw. yëngaloon ma gars ma xool. xale bi mobilisé na de kon ñu xaar léegi waaw incha allah yaay billaay wallaay tey xanaa nga bañ aatu aatu man aatu aatu lu mu yóotu aatu lu mu yóotaat fii Atou mu ngi woon. daa oh, ñu koy delloo nga xam waaye lu lu wut fii. Eh, Atou feeñ na de. eh, eh Atou eh, na de. bàyyi suñu na. eh gënu Atou de <laughs> bàyyi ma sey ma gënu Atou. waa ñii Mbabat. billaahi aw fay. te ñun ñii ñu ne si porte bi ñoo ëpp. billaahi wallaahi talaay ma toppee ma doon xale. gars yi topp ma bàyyi seen bàyyi seen yitte yëpp di ma topp yàlla di ma suturaal dañuy ñaan yàlla yàlla suturaal ma defal ma ay defal ma ndam bis ni ko tey ndax gars yi soxla gars yi tey soxla nañu ndam bi lu baax a baax a baax lu mu indi lu mu indi mais man moom bëre gàllaa mais lu mu indi tey fii la làmba ngi noonu boo jugee ñëw say mbokk ànd ak yow say xarit ànd ak yow ñu lay dooleel dooleel la ci kanam tuuti lu yónni yàggul mbër léegi léegi ma def bagage ñëwaat <laughs> maa lay xaar gali la bu jugee Baye Fall de trois yi ñëpp ay jóg ma gaay yaa ngi noonu Ardo la xale la boo xamante ni Fallou Ndiaye bi mu ko mujjee tëggal Ada la am xale baa ngi noonu dégg nga nee na gars yi ba xam ne ngeen di dallu Baye Fall gars yaa ngi noonu. non doyul doyul. ñu gis nga de. Baye Fall yaa ngi de. sama gars yaa ngi ñoo si ñoo si waaw. ma ngi yëngu ne la ca gaa yëpp yaa ma gën xam sax. waaw mais di kontaan si ñoom di sant yàlla di ñaan di julli si yonent di ñaan yàlla may ñu rek ndax lii rek ñii ñooy tax ñuy sonn. signature bi keroog gisuñu la fan nga nekkoon. waaw signature bi nag xam naa fi ñu ko defee lañ miinul carrément ak xam nga boo nekkee tu temps problème transport yi bañ demee dugg fi jaabante fii woote téléphone mujj malheureusement ñu daal tardé daal waa mais salaam siyaar bi. waaw Dorma. Dorma xam nga ko. soxlawu ma nga xam man xale laa ay adversaire noonu non man li ma li may waajal man samay gars yi sama ñi may jàppale. man loolu laa lijjanti quoi mais pas ay adversaire xam mën a may ndam. waaw xam naa ko ma def nañ ko bu yàgg muy entraînement bi mosuñu see jóg. waaw waaw. lamba gi boo jugee dañuy jóg. doole la kon ba ci kanam champion. amul ragal salaam jaajëf. tàllal na loxo bi. ma ngay nuyoo takkaay ya Blondy waaye Armé 2 moom it takkaay ya na. ñaari xale yi arbitre du xool na wey dagg na ko nee na baax na ña ànd ak Armé toogatuñu ña ànd ak toogatuñu ña ngay kat kat kat kat kat ku nekk ngay lox cey làmb lu ma la waxoon sëñ Bas bu sama mbër daan amoon naa mbër tey li may gisee nii waaye atelier ba ma nekkoon di fa liggéey dama daan wax rek buñ daanee mbër ba lundi bi damay feebar du ma la xëy ndax lan wax ya fa amee woon ku ne man la sama mbër mi bu la jàppee bu la jàppee waaye buñ ko daane duma xëy ku ma woo man la feebar sama yaram bee métti dóor yiñ mbër mi daa mel ni ci man lay aw bi sifflé na Armé 2 ndeysaan ak Bolondi Bolondi moo leen ginnaaw ngemboo ngemb Lagos bu ñuul bi Armé 2 ngeen jàkkaar lool mu ngemboo ngemb lu weex li xaw a xees arbitre bi sifflé na ña ngay léew attoo ci bët Bolondi Armé 2 Armé 2 daw na jëli ko wala daw na jëli ko Armé 2 na ko lu mu nar jàppante na ñoom ñaar mu ngay door ay uppercut ci suuf ñu ngay doorante kaaw du am mbaa door na plaqué dooraat na ña xeex Armé 2 Blondie Blondie Armé 2 jël na ko ma ngay xeex ñu ngay ku ay bal bale tàkk na Armé 2 Blondie <laughs> waaw waaw door na ko uppercut plaqué na ko xalam na ko Armé 2 Blondie Armé 2 ngay door ma ngi koy forcé Armé 2 Blondy Armé 2 Blondy eh xale yi xeex nañ Blondy Armé 2 Armé 2 Blondy am na ku gémmiñam xonq waaye yuyul guro de lu mu nar musulu na ko daanu Armé 2 daan na Blondy Armé 2 daan na oh Armé 2 Armé 2 daan na Bolandi tëb na ndeysaan Armé 2 daan na cey làmb mbër naka ma. waaw sant bu baax a baax. nga bëre combat bi combat bi xaw a déroulé tuuti xaw a yàgg. Mm-hmm. mais nga xeex ci xeex bu métti bëre bëre bi. mën nga maa noo bëree ba daan. parce que li ma bëri waana moo bëri te doo ñëw écrit ba suma wax écrit wallaay wal asim ñoom ñëpp ñu fayal bu seen jàmbaar ñu liggéey ba dee yàlla defal leen ñu am ñu am ci defet parce que cinq combat nga am ci defet Pape Mbaye ne moo xaadim ka jege ne ma arme mu naa ma rek yaakaar nga am ci Modou Lo yaakaar la am tey ci yow rek yaa mën a suxla instant écrit bi man leen père mi no amee barke alxuraanu karim sama bakkan bu dee sama dafa des danaa ko mais gis naa xeex bu garaaw nga nga xeex bi mais ci bëre la combat bi maa sa samp ba Bécaye Diouf ak samp ba Cheikh Neymar boo gisee loolu damaa yóbbu voyage ak sama staff ak ñoom Père Alioune ak ñoom Bouya di sant sama ñaari waajur ñu yóbbu ma voyage ma dem xeex bi war naa gën a métti sax ma daa jógee quoi parce que mën naa ne daaw laa bëre ñoom am ci trois sama premier combat ma am dogal tamit aussi. nga ñëwaat ren jii nii ne ki di jóge moo tax xam nga moo def lii quoi. jaajëf mbër bëgg naa ko naan ci yow. bi sifflé na diggante Simba ak Ama Ama ngeen jàkkaarloo Simba ngay Ama ngi dóor Ama ngi dóor Ama ak Simba Ama Simba jàppante na ñoom ñaar Simba moo war a xaw a ëpp tuuti volume. waaye Ama xale la boo xamante ni moomit it la Simba lu mu nar Simba Ama Simba ngi dóor Simba ngeen jàkkaar lool Ama moo leen woon ginnaaw ñoom ñaar ñu am mbëkk ñàkk nga sa combat Simba ñàkk nga sa combat mbëkk na ko ñàkk na combat am waaw waaw mbëkk na ko disqualifié nañ ko da mbëkk waaw waaw ñàkk na ama am na ndam

da nga am am combat. Ah, mooy bëre. Ah, man ak Libidor la. kan Libidor. Libidor waaw. ban Libidor Libidor yi dañoo bari de. ah Libidor moom dese naa ko xam nag ma xam tamu jool. non bu doonee di woo sama mbokk waaye yéen ñëpp. pour ñu si di ñaan yàlla cat am ndam. ndam lu gaaw ñu yéen a ko waa Yaraax gépp yéen a ko Sénégal gépp ñun lañ nañ jàppalante si ñu. man maay bàyyi saasu Baye Sassou bu Jalaaw. Sassou waaw. Sassou Baye Sassou mooy sa ñaari combat. mooy di ñaan yàlla yàlla may ma ndam. kon waaw damay dugg si si làmb. Ah, ndam rek. delloo loo nekk. muñ rek. ñaar yu ma jaaxal. mooy keroog dama laa gis Bawol tey ma gis la Yaraax lan man Bawol laa nekk mais Yaraax laa dëkk sama doomu ndey xewle il faut ma teewal ko quoi loolu la rek mais man maa écrit Badajon ba léegi quoi. waaw di ñaanal sa waay nag yàlla may ko ndam ci barki Sidna Mohamed sama waa ji dafa war a bëre gars yi ñoo koy daw même man dama war a bëre mais kii dafa war a bëre barki arxuraan. yow noo amee problème bu doy sëkk ci yow ngay lijjanti problème man moom dinaa bëre ndax ñi ma war a bëreel sunu ma jëlut fa ñu nekk laa leen di fekk seen école bëre ñoom. est-ce que dinaa lim sax di leen may bës. limal non dama leen di may bës rek. mbëri moom koo ci limul mu ne dafa maa ragal. déggoo li ma la wax dafa mbër. nañoo ñu bëre wala ma fekk ko parcelle ñu bëre. maa ngi daw baskaay maa ngi ñëw.

di tëggal caat. ndeysaan ah. loolu dina neex tey dina rek. waaw xale baa ngi noonu.

naa champion siyaar naa la siyaar doom day bëgg naa la geen dëkk bi wax dëkk bi caatu yaraax la wax li lépp jàmm lépp jàmm kay li nga doon xaar ay weer di ko xaar ay semaine ba tey ñu ne toll na ci bis ay minute moo ci des waaw yaa ma a xam léegi ay seconde moo ci des ay seconde te li mu des ay Cees mu jeex te ci kàttanu yàlla man la yàlla di àndal incha allahu rabbi di nga moom bu ñëwee lu mu indi mu fekk si ko ci kàttanu yàlla yaraax bi nga déplacé yëpp indi leen fii mbaa du doon pression ci yow. non sant yàlla la parce que xam nga fi ma doon gën fi mu doon gën a méttee mooy man ma ñëw gisuma samay mbokk mais dama ñëw samay mbokk gunge ma kon loolu doole la maa ngi koy sant yàlla bu baax di wax na waaye yaraax nañ ma xaar maa ngi ñëw ak ndam incha allah. ñii doon la topp dañ la doon topp bu yàgg wala dañoo gën di yokk. waaw xoolal rek yow yàgg nga ma topp. boo xoolee li nga xam tax dafa gën a yokk tekit nu mu la xamal mooy demal ci biti ay bleu blanc fekk loolu mooy capot yi bleu blanc mooy signifié capot caatu Yaraax mais signifié wul leneen incha allahu rabi ndam rek ci kàttanu yàlla waaw. mais lépp jàmm. lépp jàmm ah, ci seen dëggal gësëm. suñu doom yàlla na. waaw. liñ doon xaar ay weer di xaar ay semaine bañ na waxtu bi jot na ban yëg-yëg nga am tey. waaw am naa si fierté bu baax a baax. ñuy sant yàlla bu baax a baax xam nga suñ borom moom moo dogal loolu si ñun waaw waaj bi yàgg na nag mais lépp ak mbégte la daal yaa ñuy sant bu baax a baax ba yegg see le jour bi. nga dugg gis Caatu Yaraax ban yëg ngaam yëg-yëg kontaan bu baax a baax xam ne te jii sama bés la suñu boom dañoo ma sutura incha allah may man dam ci kawam. xam ñëw na ci jàmm li nga ko doon ñaanal am na. am na yee. am nga jàmm moom na. am na jàmm instant yii li si des mooy at bi génn suñu diggante rek incha allah rabi ñu jëf amul leneen. da ngaa nar moom. mais jëflante bi nga nar a jëflante moom lan la ci xeex wala ci bëre. waaw man ku ma xam-xam ne damay xeex damay bëre man lamb lu mu laaj lek dama ko koy jox laa si lamb laa du ma ñëw pour bëre rek ñëw ma pour xeex rek bëre dóor lañ wax waaw damay ñëw rek lu combat bi laaj dama ko koy jox. nee na bi dese ko. fatt na ko muy zongale bi te doo ko zongale. waaw moom dama xaar foofu loolu lay yaakaar dama xaar foofu leneen ak leneen muy fi incha allah. mani nga. waaw ba yëg-yëg nga am tey. waaw gis nga tey yëgal yëgal waaye yaram yi tàng rek waaw gis nga. ma ànd moom rek ñu fas yéene am ndam incha allahu rabi mooy loolu mais après. naa ko jël si ah. maa la Badara maa lay nuyu. dam wut fii tay <laughs> non damay seetaan lamb rek comme amateur comme ñëpp. man de dama yaakaar ku dul Balla Gaye ak Sa Thiès doo ko seetaan. ñaar ñooñu ñooy mbëru Sénégal. ñaar ñooñu ñooy mbëru Sénégal. ñoom ñaar ñooy mbëru Sénégal. Sénégal bëri ñoo fi mbër ak Ama Baldé. Garga Mbossé lamb jooju bëgg ko man maa ko bëgg man lu tax non ah, parce que sama lamb la rek bu nekkee sa man maa ko bëgg Sa Thiès bëgg ko de lamb sama lamb la kon yow Garga moo la gën a Yékini Junior Garga moo ma gënal sax pour l'instant bëreeg roi des arènes lan la da ngeen ko bëgg a weeje wala daa lu nekk ci moom lu ngeen bëgg a wane kooku du ñëw moom xëy tërëdi wala dara xamal lamb sax dimanche mu fen mais lamb jooju sama lamb la du lamb Sa Thiès du lamb waa Guédiawaye sama lamb moo jiitu lamb ci Sa Thiès Garga moo ko jiitu premier combat Sa bi mu bëre stade Diom Iba Mar Garga moo bëre woon grand combat ba mais lamb mooy dox lamb mooy doxee nu ne Garga moom ñoom Modou Lo ñoo bëreendoo presque ak Balla Gaye 2 Sa Thiès dafa def ay performance am ci moom da koo raw sax xëy na lamb moom allez am retour looloo tax parce que avancé ba ci kanam am ndog-ndogu lamb loolu moo waral tey ji nii garga di taxaw di wax wala dara garga bu taxawee ni du ma du romu benn booy dafa xamul làmb bu dee kase saakee sa kopp kase. loolu nga bëgg a wax. bisim ko sa kopp ko bëree. isam loola ñun liñ bëri jaay bisim mag garga bëreewu ko. kase bi ñuy fayeeku ci làmb garga fayeeku ko. garga bëreeg tonnerre bu mag. tonnerre saa ndooy bis ko njëkk a daan. booy ñaar numéro 2. tonnerre maa ko njëkk a daan. man limal saa ñi mu daan ci làmb nga lim garga ñi mu lim ci làmb ñi mu daan ci làmb duñ benn. tonnerre maa ko njëkk daan. Aliou Mané garga mboose moo daan. Aliou Mané dogal na chance làmb mësa gu ñoo boole mais man ñi mu daan ñëpp presque daan naa leen bu yàgg. bokkul tey lamb bu dee fukki dërëm man pour benaa juróom-ñeent yi benn ma dese moom yëgseegul sax ci juróom ba yëgsi ci juróom benn bokkul garga examen yëpp da ko échec man benn combat laa bëre te du examen booy ñang mu daan ma isam noo la kon loolu waru tax làmb ñu naan saa kees lii wala dara dama ne la ci làmb ku ko ci daan sarax la man maa ko waxaat ku ko daan ci làmb rek sarax la te làmb jooju nee naa sama làmb la bu soobee yàlla barke Serigne Touba Garga du ñu daan bu soobee yàlla bëgg moom nañ koo bëgg wallaay suñu la alal suñu làmb la salaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay ziar père sama xarit maa lay ziar. waaw Wassare Lamb delloo ziar. sant yàlla. yëpp def nga euh, jàkkaarloo bu neex macha allah diggante Siteu ak Papa gis nañ fa ambiance gis nañ fa aada ak cosaan lan la. sant yàlla rek événement la comme événement yi mais yombul woon tey du ñuy encouragé aussi ñu di ko def. parce que am nañ ci ay coono yoo xam ni finalement face à face jaratu ko waaw il faut que mbër yi ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci làmb yombalal promoteur yi liggéey bi non la fa xew xam nga ko xam naa ko coono kese la ay face to face pour man coono la waaw wax yàqu la yàgg war nañ ko def yàgg na. mais père bi seen diggante la daa mel ni presse bi daa mel ni ay kàl ngeen fu ngeen da ngeen di jiiñ toujours mbër nii amuñu organisation mbër yi ñooy indi désordre ñooy def lépp mais man damay ne je dis pas la presse mais en partie yéen da ngeen di indi désordre parce que da ngeen ñëw fekk nit ku dépenser ay millions. jël addunaam yëpp def ko ci événement organisé ngeen dikk ni li waa ji def a baaxu ci yéen seen bëgg-bëgg moo baax est-ce que loolu xel nangu na ko dañ leen waxante dëgg il faut que ñu respectante parce que loolu mooy àdduna mais je dis pas que tout le monde mais am na ci ñoo xam ni vraiment dafay metti daal. liggéey daa war a set jot na daal bu dee dañu bëgg làmb avancé jot jot na. li américain di wax watching brain ñu seetaat suñu ay bopp toog xool ni ñuy doxale afaire bi metti na trop te bu ñu continuer nii yàgg naa wax ne làmb deewul mais bu ñu toogee bu ñu ne nii benn promoteur dootul sawarati tëgg yenn làmb yi. làmb fu mu toll nii bokk nga ci ñi nga xamante ni yow lañ yaakaar ci làmb ndax ku mel ni Papa Sow ak Siteu rek lañ fi mën a duut baaraam ne combat boobu mooy combat bu mag yi yaakaar yëpp mënuñu koo gëm. parce que mbir mi boo ciy nekk tey wasaara làmb nga nekk boo ci gisul woon intérêt boo ci gisul woon njariñ boo amul woon idée participer ci développement paysage médiatique doo fa toog ñun xëy na loolu lañ yàlla nattoo mais il faut que yéen ñi nga xam ni yàlla daf nu nattu ñu war a collaborer ak yéen mu doon li nga xam ni tubaab moom la tuddee complémentarité mu doon une bonne complémentarité mais pour être honnête wax leen dëgg yàlla rek tax parfois vous nous menez la vie difficile da ngeen di ñëw fekk nit dépenser ay millions doo leen ko jàppale ci dara du bande annonce du bannière du dara la ngeen di wut lépp da ngeen koy def ci seen ay site consommé ko yéen ci seen biir bopp ak seen ñi nga xam ne may ma danga ma laaj yéen ak ñi nga xam ne ñoom moom site yi en retour promoteur bi du ci gaje dara du ci gis boppam parce que promoteur bi am na ñu muy liggéey loolu déjà am na partenaire média mais comme yéen jafeelu ñu leen dara accepté nañ leen ànd yéen ñoo bokk tool bi mais yombalal leen ñu ko ñeen respecté suñu ay directives mais mënu leen mbë mbër yaa ngi ñuy teg coono amatuñu fu ñu tëjee làmb ñu ne leen nii la ñu bëggee organisation bi. may ma ñu ni leen fii la nii la bëggee organisation bi ngeen wëlbatiku ne yéen ki fay ay millions li mu wax dara teguwu ci yéen li ngeen bëgg moo tegu. père annonce bi la wasaare làmb defal ci face to face Papa Sow Siteu est gis nga ko. nga ni annonce bi la wasaare lamb defal ci face to face gis nga ko. gis nga gis naa ko. waaw non ñëpp a apprécié mais loolu day loo xam ni ba ma leen defee remarque bi ah l'heure de cette rencontre parce que bi ñuy dajee CNG veille bi bi ñuy régulariser laa leen ko wax vous avez sauté sur l'occasion pour le faire man pour man votre dimension d'esprit votre sens de collaboration euh, votre professionnalisme war leen orienté ci loolu avant que moi je le souligne. père promoteur yëpp defal nañ leen ko yow daa fekk nga laakarti suñu lañ. yàlla baax na. di gis ci combat bi wasaare lamb nuñ ciy taxawee jërëjëf père. di la fa ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax. façon bëre bi nga bëre ak Farou Diar lan la. waaw teg ko si temps ndax boo xoolee li topp sama ginnaaw ñu xam ne sama combat war ma ko yàq. billahi tey waa Yoff dan maa jàppale tey li wax sama lamba ji bu doon bu doon Balla Gaye sax dama koy daan ndax Yoff dan maa jàppale tey Yoff Yoff tey dañ maa dooleel tey may génn sama gars. ngeen jàppante mu mu mu mu plaqué ngeen daw génn saako yi nga duggaat ci digg géew bi lan la. ma ko am ma reculer pour mën a ñëwaat li tubaab bi la il jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb gis ngeen combat bi doxoon ci diggante serpent ak caatu yaraax caatu yaraax wanati na boppam wanati na boppam ndax arbitre bi ñu sifflé may sax fu ñu waxee dimanche wala samedi 22 février 2020 may ñu ko caatu yaraax waxee arbitre nee na prip mu dox ci kaw adversaire am muy serpent daan ko jël bu amul benn werante serpent lamb noonu la daan nga jóge ci làmb am ndam àndaatal ak say mbokk àndaatal ak say xarit àndaatal ak say am di jàmm ñëwaat ci lamb lamb bis bu nekk mu wan la boppam euh, caatu yaraax doon na xale boo xamante ni wane na boppam ci lamb ndax waxoon naa ko fekk naa ko Gambie mu wan ni làmb ji am na lu mu ko jaral am na ci ndam bu sedd bu guy ñu koy félicité moom Caatu Yaraax mbokk yi léegi léegi dinañ leen dégtal Caatu Yaraax ba mu demee ci ay mbokkam nan la def ak ñoom léegi léegi ci wasaare làmb sëñ Bass yaa baax yaa góor